ñu commencé woon ko ci wàllu làpp ñu dellu siwaat tey ci seen émission boobu yéen ñi nga xam ne yéen ay topp seen kilik ci seen jotaay yi di ñaan ci yàlla subhaanahu wa yàlla ñu yàlla may lépp lu ñu ci génnee rek muy njëriñ ñu ñaanit képp ku ko jot boo ko jëriñoo yàlla na yàlla barkeelal ko te nangu ko ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ci seen émission bi passé waxoon nañ leen laab ci ni ko alquran jàngale ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy dellu siwaat gannaaw bi ñu leen waxale lan moo laab ci diine ci alquran ak hadith kon tey dañ leen war a wax laab boobu ñu wax nag ndox yi nga xam ne mooy ndox yi ko war a def yan ndox la war a doon ndax laab li koy def mooy ndox kon jullit bi war na xam ndox bi mu war a utiliser pour laab ban ndox la war a doon kon boo doon xool al li ñu tuddee ndox yàlla subhaanahu wa taala moo wax ne wa anzalna min as-samaa'i maa'an tahura yàlla ne na moo wàcc ci asamaan si ndox mu laab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it waxoon na ni huwa tahurun maauhu wa xillun maytatuhu ba ñu ko laajee ci ndoxu géej dafa wax ne ndoxu géej dafa laab waaye bépp loo xam ne medd la bu fay génni loolu dafay nekk lu dagan bu ñu ne medd nag mooy géej lépp lu fay génnee duñu ko rendi looloo tax ñu ne medd bi nga xam ne moo ci génni lu jën ak la ca aju kon bu ko defee ndox moomu nag dafa am ay xaaj ci àtte sharia dafa am lu ñu tuddee maa un tahurun mooy dafa am ndox mu laab mutahirun boo xam ne dafa mën a ndox mu laab ba pare mën a laabal leneen mooy ndox mi nga xam ni yajuusu istimaaluhu fi l ibadat wal aadat bu ñu ne ndox mu laab te mën a laabal ñu ne mooy ndox mi nga xam ni danga dina dagan ci jullit mu jëfandikoo ko ci jaamu yàlla waaye dina jaadu yi tamit dina dagan ci jullit mu jëfandikoo ci lépp loo xam ne mooy aada te mooy mu ngi mel ni lu teel mi togg ak naan ak fóot ak ya ca aju wala nga mooñ sa cereeg yi ci yi ci aju kon yooyu yëpp jullit bi mën nga ko def ci ndox moo xam ne maa un taahir mutahhir ndox mu laab la te mën a laabal bu ñu ne ndox mu laab te mën a laabal ñu ne mooy ban ndox ñu ne huwa al maa'ul mutlaq al baaqi ala aslihi te mooy ndox moo xam ne ndox mu naturel la boo xam ni ci nature bi ko yàlla binde woon ci ndox mi noonu la des falam yataxayyar te soppeekul moom ndox moomu bi najaasatin ci benn sobe nekkul wala bi shay'in tahirin waaye soppeekuwul ci lu laab ndax ndox mën na soppeeku fekk ne li ko soppi dafa nekk lu laab waaye ndoxit mën na soppeeku fekk li ko soppi nekkul lu laab ndox yooyu ban ndox la war a doon kon moo wax ne ndox mu laab te mën a laabal mooy ndox moo xam ne bu naturel la mooy ndox moo xam ni ni ko yàlla bindee soppeekuwul te danañu ci ñëw ci kanam ngir ko leeral ndox moomu nag su fekkee ne mën na am mu nekk ndoxu taw mën na am mu nekk ndoxu teen mën na am mu nekk ndox robinet mën na am mu nekk ndoxu dex walla ndoxu géej wala ndox moo xam ni eh, galaas la woon ba mu seey nekk ndox yooyu noonu yëpp mën nañ koo jëfandikoo ci jàpp ci sangu ak leneen yi nga xam ne ci jàmm yàlla la mën nañ ko jëfandikoo ci jàpp mën nañ ko jëfandikoo ci sangu kon ma delluwaat ci mu gën a leer pour ñuy déglu ndox bu fekkee ne yàlla asamaan si dafa taw ci taw boobu am nga paan bu set nga taataan ndox moomu ndox moomu bu fekkee ne noonu la mel lu naturel lay doon ndox moomu mën nga ko utiliser ci sangu ci jàpp ci naan bu fekkee ne paan ba nga ko def paan bu set la woon su boobaa ndox moomu mën nga ko utiliser wala ndox moo xam ne ndoxu robinet la ndox moomu mën nga ko utiliser ci njàpp mën nga ko utiliser ci sangu farata waaye mën nga ko utiliser ci togg wala naan wala yeneen beneen bi nga xam ne tamit mooy ndox mi nga xam ne nag mooy beneen ndox mi mooy maa'u tahuur xayru ndox moo xam ne laab na waaye mënta laabal leneen ñu ne mooy ban ndox mu ne mooy ndox moo xam ni ndox la boo xam ne dafa soppeeku li ko soppi nag mën na nekk lu laab lu mel ni parfum mën na ko soppi te dañ wax ne ndox lii mooy tax ñu ne ndox mi dafa soppeeku xet gi mën na soppeeku couleur bi mën na soppeeku cafka gi mën na soppeeku ñett yi bu soppeeku ci ndox rek xamal ne ndox moomu nekkatul ndox mu mën a laab laab na waaye laabalul leneen te mooy ndox moomu bu la neexee mën nga ci fóot bu la neexee mën nga ci togg waaye doo ci mën a jàpp doo ci mën a sangu farata loolu li muy tekki mooy bu fekkoon ne tey danga nga rootoon paanu ndox ci robinet bi bi nga ñëwee taaj ko ndox mi amul lenn lu rax ci ndox mi ndox moom mën nga ko jëfandikoo su boobaa waaye su fekkee ne ndox mi bi nga ko jëlee teg ko noonu parfum da cee tuuru wala ndox moomu bi nga ko jëlee cuuraay da cee tuuru nga xam ne xeetu parfum bi mu ngi ciy xeeñ ndox moomu dootoo ko utiliser ci njàpp dootoo ko utiliser ci sangu waaye bu la neexee nga raxas ci say ndab bu la neexee nga togg ci loolu mooy li ñu tuddee boo xam ne mën nga ko jëfandikoo ci aada waaye mënoo koo jëfandikoo ci jaamu yàlla ndox yooyu loolu mooy ndox moo xam ne laab na waaye mënta laabal leneen lu tax mooy ndox mi li ko soppi ci boppam nekkul sobe ndax bu doon sobe rek dootoo ko jëfandikoo ñu ne kon mooy ñaareelu ndox mi ñetteelu ndox mi mooy ndox moo xam ni ndox mi li ko soppi mooy sobe ndox bu fekkee ne danga nga ndox mu am sobe bu dugg ci ndox mi ndox mi bi ci sobe si duggee soppi na melokaan bi ni mu mël couleur bi walla soppi na cafka gi wala soppi na kulo euh, xeeñ xet gi su boobaa ndox moomu dootoo ko mën a doo ci mën a jàpp doo ci mën sax def yeneen jaamu yàlla parce que li ko soppi li ko soppi sobe la maanaam ndox daal saa yu ko soppi sobee soppee rek doo dootoo ko mën a jëriñoo c'est-à-dire doo ko mën a sangu doo ci mën a togg doo ci mën a naan ndox moom la ñu tuddee maa boo xam ne maa u na gis mooy ndox moo xam ne ndoxu sobe la bu ko defee beneen ndox mi nag mooy ndox moo xam ne sobe tuudu tuuru na ci ndox moomu waaye bu ñu seetloo soppiwul dara ci ndox mi maanaam sobe tuuru na ci ndox mi waaye boo ko seetloo xeet gi soppeekuwul ni mu mel couleur bi soppeekuwul cafkaam soppeekuwul maanaam ndox mi feek changement amul ci couleur yi changement amul ci euh, xet gi changement amul ci guub bi te mooy li muy saf ndox moom su boobaay dinañ ko mën a jëriñoo bu ko defee ñu indi nag nu bi nga xam ne moo ci mujj mooy ndox moo xam ni dafa sax fi yàgg lool ndox bu fekkee ne fi mu nekk place la boo xam ni moo ndox mi ñuy dund masalal xam nga tey am na am na ci bërëb yoo xam ni ndox mi fi muy jaar ba yegsi ci yow place yooyu dafa am dafa am cafka cest à dafa nekk lu wex ndox moomu itamit bu fekkee ne dafa ñëw ci tuyau yi ba yegg si ci yow comme naturellement noon la mel moom ndox mi noo dëkk ndox moom mën nañ ko utiliser ci jàpp mën nañ ko utiliser ci leneen mooy ndox moo xam ni fi muy jaar ba yegg ci yow loolu mooy indi changement boobu ndax it am na ci tey ci robinet yoo xam ni fi ndox mi di jaar ba yegg si ci yow ndox moomu mën nga ko utiliser ci julli jàpp walla sangu walla def leneen waaye bu fekkee ne nag ndox mi dafa nekk ndox mu naturel da nga ko root muy ndoxu teen wala muy ndoxu robina wala muy ndoxu ndox moo xam ne ci asamaan si la jógee maanaam ndoxu taw ndox moomu nag bu amee lenn lu ci dugg loolu da ngay xool li ci dugg lan la li muy tekki mooy bu fekkee ne ndox mi da nga ko root ba noppi mu am sobe bu ci tuuru da ngay ndax est-ce que soppeeku na est-ce que cafka gi soppeeku na est-ce bi soppeeku na bu yii soppeekoo rek ndox moomu dootoo ko mën a utiliser tant que soppee so sobi soppi na su fekkee nag ndox mi li ko soppi lu laab la ndox moom doo ci mën a jàpp gaa waaye mën nga ci raxas mën nga ci togg bu la neexee ak yeneen yoo xam ne bokk ci jàmm yàlla kon loolu moom liñ doon wax ci wàllu ndox mi nga ñetti ndox yi nga xam ne moom la ñu wax ni mooy ndox moo xam ni couleur bi soppeekuwul xet gi soppeekuwul melokaanam soppeekul ndox moom mooy ndox bu naturel ñu jaaraat ci pour mu gën a leer ci ñiy déglu ndox bu fekkee ne ndox mi ni mu mel couleur bi soppeekuwul cafka gi soppeekul eh, ni mu eh, maanaam xet gi soppeekuwul ñetti yii bu soppeekuwul ci ndox rek mooy ndox moo xam ne bu naturel la waaye ndox bu amee changement bu ci am ci ñetti yi ma la wax rek ndox moomu mun nga koo jëfandikoo ci leneen waaye mënoo ci jàpp mënoo cee sangu farata am nañu tuddee al maakul maa moo xam ne makruh la mooy loo ndox moo xam dañ ko sib maanaam ndox mi sobe su tuuti moo ci tab bi waaye soppeekuwul ndox moomu lañ wax ni boo amee beneen ndox jëlal ndox mooma te bàyyi ndox moomu maanaam sib nañ ci ndox bu fekkee ne da nga am ñaari pan pan bi sobe si dugg na ci waaye soppeekuwul paan mbële sobe si laalu ko kon su boobaa boo naree jàpp jëlal paan bi nga xam ne ni mu mel lu naturel la te dara dugg ci donte bale sobe dugg na ci waaye sobe si sànq soppiwul soppiwu ko su boobaa dañuy wax ne sib nañ nga jëfandikoo bële bu fekkee ne am nga beneen boo amul beneen ak ndox moom mën nga ko jëfandikoo kon bu ko defee loolu moo doon seen jeetaayu tey bi ñu ne tamit ndox yooyu ñu wax dafa am ku ci laaj ci ci biir émission bi am na ñu ci laaj ay laaj dafa am ku laaj ne waaw ci jamonoy sedd est ndox moo xam ne da ko tàngal mën nañ koo utiliser wala déet waaw waaw ndox moomu mën nañ koo jëfandikoo maanaam bu fekkee dañ nekk ci moment sedd moo xam ndox mi da nga root teg ko ci naaj bi pour mu tàng moo xam ndox mi da nga koy teg ci gaz bi pour mu tàng ndox moom la wax ne mën nga cee sangu farata mën nga cee sangu mën nga ci sangu euh, nu mu euh, mën nga ci jàpp mën nga ci sangu kon ndox mën nga ko tàngal jëfandikoo ko ndax itam boo ko tàngalee du tax changement am ci maanaam moom température benn lay waaye soppiwul couleur bi soppiwul cafka gi soppiwul yeneen xet yi ndox moom lañ wax ne mën nga koo mën nga koo jëfandikoo ci njàpp waaye mën nga cee jëfandikoo ci sangu farata looloo tax boo demee ci fuqaha yi dañ lay wax ni boo nekk bu fekkee dañ nekk ci moom moment sedd te xam nga ne tey boo ànd ak soxna si te amuloo loo tàngalee te boo laalee ndox mi mën nga ci doo jolee lor ñu ne bul ànd ak soxna si bul ànd ak soxna si ndax lu tax mooy amuloo loo sangoo te ndox mi boo ko laalee mu indi la feebar su boobaa kooku lay wax ni mën na jël